léegi. Mhm. su ma ñëwee ci actualité yi nga xamante ni moo ci dëkk bi. Mhm. mu wàllum góor jigéen yi fi am. noo dundee loolu góor wàcc fi jigéen dem ci moom góoram noo noo noo gisee loolu. dañoo feebar rek. Hmm? dañoo feebar de. loolu feebar la. waaw. xam nga gis góor. du ko see ak góor. kooku mun naa see mbaam mun naa see góor bu gis góor di see ak moom mun nga see ak mbaam mun nga see ak xaj waaye jigéen mu neexee nga bàyyi ko fale di see ak sa moromu góor kooku mun a see xaj mun a see ak sëñ bi ci réseau lañ nekk mën naa wax. bu hmm? xam nga ne yow da ngaa ñëw fii rek pour ñu waxtaan. Mm-hmm. xaj. Hmm? Mm-hmm. ak maam. ak góor seen affaire ba ngi ci ginnaaw jigéen affaire ma ngi ci kanam ku bàyyi ci kanam nag dem ci ginnaaw kooku mun na see mbaam mun na see xaj daal ba ngi ci ginnaaw voilà. dëgg ñëwee ci politiciens yi gis politiciens yi kii day nekk ci parti bi di xeex ak kii ba mu neex mu jóge ci foofu ñëw ci moom. Hmm. gisee loolu. Hmm? loo wax ni. li may wax xam nga ah déet xam naa non xaw ma ko damaa dégg rek waaye xaw ma lu nga wax. <laughs> dañoo gis Macky Sall. waaw ak ki nga xamante ni moo Idrissa Seck. waaw ñu jàkkaarloo. waaw bañ naa ay adversaire la ñu jékki-jékki gis Idrissa Seck ñëw ci Macky Sall. ñu hmm. bëri ñaawlu hmm. laaj ma làmb làmb laa xam <laughs> xaw ma politique. bu baax rek. politique xamuloo politique te xam ci tous. xanaa kon kon yow doo voté ji. xam nga xam. Sénégal ku mu téye naan kii may président. ñu ànd ak moom loolu laa xam. waaye bu dul loolu. xaw ma ci leneen. kon yow dëkk bi ni yow yëgoo. man ma la gën ma ci ma la gën a métti di. <laughs> te waxuma dara. man mi xëy di téye cent franc. dëkk bi gën waaye ñeme wu ma wax dinaa ñu seen a mujj ak Mariama ja Mariama ñu téye ma police waxuma ci politique dara politique. Souleymane Dene astafurlah waxuma ci dara billahi. léegi dama ñëw am na ci loo xamante ne waaw nañ bàyyi loolu kon waaw ñu bàyyi loolu. laaj ma ci làmb nga bàyyi politique at na wóorul <laughs> baax na.